wa sallallahu taala wa sallama wa baraka ala nabiyina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa fii ci jumaay Tuubaa ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa di jiital ci nuyoo boobu ak ziyaar bi saaxibul fadilati al cheikh Mouhamadin al Muntaxa al xalifatul am li tariqati al muridiya di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi lool te may ko wér ak njabootu sëriñ Touba gi yëpp di leen ndokkeel bu baax a baax ci weer wu màgg wi ñu génn muy chahru safaril xayr ak bis bu màgg bi nga xam ne moom la làmboo muy bis bi nga xam ne ci lañ doon santale cheikhul xadim boromam di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mbooleem luñ ci def ci jaamu yàlla mu nangul na ko te tegol na ko ci loxoom te fekkeloo na ko ay at yu baree baree bari te yàggal fi Cheikh Mouhamadul Mountakha te mu yàgg ko taxawee di leen ndokkeel itam bu baax ci weeru màgg wi ñu dugg muy chahru rabiul awal di weeru gàmm moom itam bis bu màgg nekk ci bis bu ñuy fàttaliku juddug ngën ji mbindeef sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te sëriñ bi soññee lool ci ñu di ko màggal kon ñu ngi ciy ndokkeel mboolem jullit ñi di ci mbokk ndokkeel mboolem yoonu murit di am mbégte bu baax dellusiwaat ak yéen ci seen jataay bi ngeen tàmmoo am ci weer wu jot ñu koy wax liqaat at te mooy ndaje ñu ci dajal dalal ay boroomi xam-xam di ci waxtaane ay tomb yu am solo te nag ñu génn ci beneen facette anam gu bees taq anam goo xam ne gu nara am solo la ñu war ko waxtaane muy xam-xam science littérature ak yoonu murit lëkkaloo gi mu lëkkaloo ak yoonu murit loolu lañ war a waxtaane war cee dalal nag koo xam ne bu ñu gisee jëmmam rek dootul jar ñu koy présenté muy professeur Assane Mboup sëriñ assan di gëstukat di euh, xalaatkat di bindkat ci yoonu murit ñëpp xam ko ràññee ab taxawaayam bu baax a baax tey mooy ganu MK fii ci Jumaay Touba kon sëñ Assane ngi lay nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Abdoulaye ñu ngi lay fay bu baax a baax tey sant euh, jërëjëf sëñ asan ñi ngi lay dalal jàmm fii ci Jumaay tuuba ni ma ko waxee léegi nag fas yéene waxtaani tomb bu am solo. Hmm. te mooy science ak littérature ci yoonu murit ñu war ko waxtaane hmm. muy tomb boo xam ne. néew na ñu koy waxtaane te muy lu mat a waxtaane hmm. moo tax tey ñu bëgg cee comp tuuti xam naa ne xam nañ ne sax lu yaatu la loo xam ne dafay laaj jataay yu baree bari hmm. waaye dafa dañ ci bëggoon a ubbee rek hmm. am luñ ci yóbbaloo ba bu ëllëgee bu ñu delsee gën cee mën a xóotal kon ñu ngi lay dalal bu baax a baax a baax fas yéene dugg ci waxtaan wi nag bu ñu waxee science ak littérature jëmmi science ci boppam suñ ko doon xamle mooy lan mooy lan lu ñuy mën a tënk ne mooy science. Mm-hmm. Ah, jërëjëf sëñ Ablaye ñu ngi ñu ngi sant bu baax ci laaj boobu nga xam ne dañ koy tàmbalee ci sant suñu boroom moom mi nga xam ne maanaam moom mooy science moom yàlla sunu borom ah, loola itam danañ ko danañ ko leeral li tax ñu wax cant googe itam mu tàbbi ci tawféex gi nu am ba doon ay jullit ak bokk gi nu bokk ci sëriñ bi dooni taalibe yaakaar ko moom sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ñu jaare ci di ñaan Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te àddina bi jëmmi science li ñu tàmbalee ko ci ne science mooy sunu borom lañ ca jublu rek mooy teel a déba ni nit ñi déggee science ak niñ ko war a dégg bu fekkee ne dañ koy waxe ci nii ko nit ñi di comprendre muy chercheurs yi ak homme de science yi dañuy jàpp ne ñu ngi koy xayma ci doxaliin métodologie approche mooy aw yoon ak aw yoonal mooy lu ñu sartal loo xam ne suñ ca sukkandiku danañ mën a firndeel mbir waaye dees na ko mën a layal et dees na ko it mën a jëmmal ci lu dul sa xalaati bopp waaye teg ko ci ay sart jëmmi science moom loolu la woon bokkul ak li ñu tuddee ne disciplines scientifiques discipline scientifique mathématique nga ca archéologie nga ca médecine nga ca art sax dana ca bokk boo ko xoolee li tax nag ñu ne science mooy yàlla sunu boroom moo di yàlla sunu boroom mooy ki nga xam ne laa bidaaya laha laa nihaaya laha amulub tàmbali amul fu mu yem mi ngi mel ni day ci logique d'une ligne droite en mathématique amulub tàmbali xamoo ko amul fu mu yem mënoo caa jote kon leneen lu mën di ne ci digg bi lu mën di doon rek ca loolee lay aju kon mooy ki nga xam ne moo dañ kumpa ci lépp mooy yàlla léegi science boobu nag daf ca am ay diggante lu ñu tuddee ay segment segment yooyu bu ñu jëlee logique de ligne droite ba tey mathématique segment mooy lu tàmbale barab yem barab ci biir diggante boo xam ne amul tàmbali amul fu mu yem segment boobu nag la nit ñi di sukkandikoo ngir di àtte ak a gëstu ak a jëmmal ak a firndeel ba waral tey su ma la joxoon tey misaal jamono yi nga xamee ne vers le seizième siècle amoon na problème entre l'église l'état et les penseurs mmh. maanaam jàngu bi xalaatkat yi philosophie ci lañ bokk homme de science yi ci lañ bokk ak l'état dafa am ay théoricien philosophe yoo xam ne dañu doon lijjanti luy tax ni état na deme ne science deme ne ñu neutre te jàngu bi neutre moom di lijjantee fi yàlla rek loolu moo dem ba nga xam ne li ñu jàppee science dafa néewal doole science ba waral jamono ji am piège bu mag a mag mooy da nga gis sax ci internet ñu naan la les preuves scientifiques du Coran comme su fekkonte ne dañ ne science gëstu na ba firndeel ba jëmmal luy tax ñu mën a gëm ne ndeke alxuraan lu bàyyi ko ci yàlla mu mel ni dañoo benn mbir ko suñ ko tàmbale woon ci xam ne science yàlla la d'abord dañ xam ne kon yàlla mooy leeral waaye lépp lu yàlla sos munta leeral yàlla suñ borom ndax kalat fikkaru moom yàlla nit lott na ci mën a xam ci moom dara kon léegi science boobu nag ban déggin ak ci ban science la wax loolu mooy question. ok jërëjëf euh, wax nga lu am solo. ci benn gi ñu benn. diggante science. ak mbirum yàlla. nga xam dañ ko benn. alxuraanul karim. ni ko ni ko sëriñ bi waxee. Mm. daanaka mooy science bu ñuy wax science. Mm-hmm. alxuraanul karim la. tey jii discipline de science bi ngay wax lu baree baree bari ci alxuraanul karim la génnee amul ci bu ci génnewul tey astronomie tey bu ñu fexee bay xam suñu duddin ci wàllu jaww ji ci wàllu dem nañ ba xam ne li ci alxuraan di wax ba mu koy wax boobaak léegi euh, quatorze quatorze siècle la quatorze siècle te ba léegi mhm. science weddeegul loolu kon dafa mel ne science moo ñëw fekk si euh, euh, alxuraan mm-hmm. waaye alxuraan fekkiwul science ok maanaam maanaam maanaam yàlla sunu boroom mm-hmm. moo xéewale doomu aadama mm-hmm. ci xam-xamu boppam lu waral mu mën ko jëfandikoo ba tax ñu naan ma nga jëfandikoo science xam nga science bokkut ak technique ba tey technique moo jiitu science ndax science dañ ko théoriser ba waral mu jur ay discipline technique dafa am lu taxaw loo soxla xam nga l'âge de la pierre taillée buñ ko dee wax booba homologué wuñu maanaam chartalaguñu ay science ak yooyu nit ki mooy dund suñu borom wàcce ko lu ko wàcce jox ko mission mission boo xam ne lenn rek la jaamul yàlla ittaqu la hmm? yaa ayyuhan naas ittaqu rabbukum loolu rek la alors nit kooku ñu wàcce ko ci suuf yàlla sunu boroom diggante bi fam jaar ci maam aadama ak yooyu yàlla leeral na wàcce gi ko wàcce ci suuf nag doo ko dafa bind suuf bind doomu aadama doomu aadama am ay ay ay besoin lu mu soxla loo xam ne day dem ba toll ca du ko mën a ñàkk mu lijjanti ko par uh-huh. quel voie uh-huh. technique ñëw mu te mu mu daal di téye pierre ngir am lu mu soxla booba homologué wu ko xamagul lan moo nekk ci technicité bi nan lañ ko structuré ba mu nekk une science archéologique wala mu nekk mathématique wala physique waaye moom besoin tax na ba mu jëfandikoo technique technique boobu moo jiitu science moo jiitu waaw kon xam nga ne kon science c'est bien après kon science doomu aadama moo topp ci xam-xamu yàlla sunu borom ba mu ko may uh-huh, uh-huh. ma jox la Ghazali ni mu leer imaam Ghazali wu philosophe la waaye njëkk muy philosophe nitu yàlla la uh-huh. mujaddid la da doon leeral gi doon leeral ci xam-xam tey ji ci ngëm boo jëloon big tey bindukaay xalima di bind bu fekkoon danga jël xorondom muy fourmi suy xool moom fa bëtam yem fa bëtam yem danaan catu xalima bi muy bind bu fekkante ne xorondom bi ndax bëtam fa la yem fa la yem soo ko rombee tuuti soo jëlee ku ko ëpp dayoo te mu mën a gis xalima gi te bëtam rombut xalima gi xam-xamam moo di xalima bi mooy bind nga jël keneen ku bu gisam ba mu mën a gis ne xalima gi mi ngi sax ci loxo kooka danaan loxo bi muy bind ndax gisut la ca des ba keroog ngay gis doomu aadama bu gis moroom doomu aadama bu bind mu ne xalima gii mi ngi sax ci loxo loxo bi sax ci bras bras bi sax ci jëmmi doomu aadama xelam may ko ci ne jëmmi doomu aadama boobu lépp lu mu xalam xalaat ko ci xel la jóge xel boobu mu sunu boroom a ko joxe sunu boroom mi ko joxe ak ruux moo koy doxal ruux googee ko ka sàkk koo koy boroom xam kon kan moo bind su ko defee am leneen lu teew diggante science ak diine muy lu ñu tuddee alqadar dogal dogal muy diggante boo xam ne scientifique bi su su faayee lislaam su faayee diine ji su faayee ngëm la muy yor du nekkati science absolue mais day nekk une discipline parcellaire de la science dëgg la dëgg la waaye Sëñ Assane kon bu ñu bu nag ci science ak l'islam ak diine ak l'islam ci boppam kon doonut loo xam ne lu jullit ñi war a ignorer la lu ñu war a sànni ne non justement foofu mooy erreur bi jiitu mooy loolu mooy dañoo benn mbir mi benn ko ba noppi wëlbatiku nag ne diine ji ñun science ñi ngi nii ñëw leen ñu jàppale uh-huh. foofu la erreur bu mag bi uh-huh. nekkee xam nga tey science digg bi jariñe am na philosophe bu wax ne science sans conscience nekk ruine de l'âme conscience la wax nee na xam-xamu science boo xam ne conscience lalu ko maanaam koo xam ne yaa ngi bàyyi xel ci sa aqulaay taala ci lu war ak lu warul nee na dafa mel ni ruine de l'âme maanaam dafay dafay euh, yàq xol waaye déglul sëñ Tuubaa moom lan la wax sëñ Tuubaa dafa ne fa kasratul ilmi bi gayri adabi jalibat ilal aza wa taab boobu gën a xóotati de bari xam-xam la wax uh-huh. boo waxul sa science bari xam-xam bari mooy daanaka pegg nga lépp uh-huh. bi xayri adabi su laluwul ci teggin uh-huh. teggin boobu nag bokkut ak ñu ne nit am na yar kay mi ngi jëm ca tegginu tasawuf mu ne bu laluwul ca loolu fan lay jëmale ci coono ak i lor ci kan jëmmi ko ko def te ñamu koy def kon sëñ bi dalay leeral na ne bépp xeetu xam-xam soo ko tënkut ci ci diine dootul doon xam-xam uh-huh. wala du la mën a jariñ uh-huh. léegi nag xam-xam yooyu ñuy wax dafa am ñaari mbir mooy lu ñu tuddee outil ak besoin uh-huh. jumtukaay bi xam nga bërki dem moon yaay wax nañ la ne la Facebook dafa paan astafirlah WhatsApp WhatsApp dafa paan bi mu paanee ñu bari too ci doomu adama yi paan waaw xam nga li tax ñu paan dañoo jaawale jumtukaay ak ak besoin ak besoin mhm. maanaam internet mhm. du besoin jumtukaay la léegi nag soo ko beenee jël jumtukaay taxaw ko taxawaayu besoin besoin ñu ngi koy firee ci compréhension philosophique ce qu'on appelle le se sans quoi mooy loo xam ne soo ko amut. mënatoo ko ñàkk. c'est vital. tey ndox soo ko amul. doxee tuuti ñu ne dafa déshydraté. su continuer ñu ne kii mënatul dem bootu bu ko yàlla dimbaliwul day kooku besoin la léegi internet soo ko joxee taxawaay boobu te mu leer na ne tollu fa ña ko yor buñ ko paanalee nga paan. léegi nag ci compréhension science ak diine mooy ñu xam ne science dafay taxaw taxawaayu jumtukaay boo xam ne dafa am lu ko maye mooy ka nga xam ne in allaha huwa razaqu zul quwwati matin mooy yàlla su yàlla nag moom lan la soxla diggante boobu maa uridu minhum min rizq wa maa uridu an yutimoon inna allaha huwa razaqu zul quwwati matin moom soxlawul dara ci ñun suñu borom nee na soxlawul soxlawul ñu jox ko soxlawul ñu leele ko soxlawul dara mais ku am moo la jox ginnaaw ku am moo la jox te soxlawul dara kon bépp xeetu xam-xam bu am da ngay jàpp ne kon moom moo tax mu am léegi nag xam-xam boobu su fekkee moo tax mu am ñaari mbir day taxawaat mooy xam-xam boobu ndax toll na ci ilmun naafi xam-xam bu jariñe wala ndax xam-xam rek la léegi nag mu toll ci yow nga def ko muy ilmun naafi kon su fekkente ne science boobu aj nga ko ci ne lépp lu am ci xamuk sunu borom lu mu ca compali nit kon jaadu na nga jëfandikoo ci loolu ngir dëgëral sa diine léegi nag ndax kon dafa araam ci nga verser vers la science déedéet ndax li ñu homologué muy mathématique muy astronomie muy archéologie et cetera fekkoon na sunu boroom taxawal ko ba noppi waaye nit ñi amuñu tur wi mu jël ci xam-xam boobu mayee ci nit ñi jëfandikoo ca xam-xam ba ba mujj homologué ko waaye bu nu fàttee yàlla xam-xam boobu dootul jariñ dëgg la kon diggante xam-xam bi science bi ak diine liñ ci njëkk a comprendre moo di que nit ñi ñu xam ne la science est d'abord l'apanage divin fi yàlla la moo koy maye maye bi nag dafa am yoon woo xam ne dañ koo sartal mooy ñi naan dañoo jàng ji médecine ñii ne dañoo jàng mathématique ñii ne dañoo jàng euh, euh, euh, physique chimie ñii dañoo jàng informatique ñu ne dañoo jàng transmission comme ñun lii nuy def transmission satellitaire wala IP wala nangam nga xam ne waxtu wu ne ma ngay dox di romb nañ ko xamee woon kon loolu da lay wan ne la kon su fekkoon segment la am na fu mu tàmbalee am na fu mu yem du bokk ak yàlla mayu yàlla amul fu mu yem waaye ca la muy jox nit la nit ki di toll fii ci barab bi yem fii ci barab bi mhm. waaye buñ ko ajee ca moom kenn du avancé buñ ko ajee ci yàlla nag barab boobee nga yem bu ëllëg nit da koy romb ndax ca mayu yàlla ca la est-ce que macha allah kon nga xam ne tey dépendre gi ñuy dépendre ci ay littéraire hmm. ay scientifique nga xam dafa mel ne ñoom dañuy ñëw ngir indi solution indi lisla am solution ndax loolu itam du doon jafe-jafe kon boobaa waaw mais loolu bari na nag lu ñu koy lu ñu koy teg loo xam ne la ca jiitu complexe hmm, complexe ndax tey man je le répète partout fu may dem ah. ça c'est ko combat que je mène maanaam leeral nit ñi ñu bàyyi niñ leen di réerale ah. ñun suñuy gone yi jàng ñun lañ doon jàngal suñuy maam ñun moom lañ jàngal suñuy baay ah. ñun moom lañ yañ ko doon jànge ba bisub tey téere yooyu lañ koy dëgg téere yooyu nga koy jànge doo ci gis benn téere bu la xamal ne la am na ci bindkat yi koo xam ne lim bind ba àdduna soso bu bisu tey kenn mosu ko bind muy sëñ Tuba oh. gannaaw alquran doo ko gis fenn léegi nag science littérature et mouridisme oh. muy li ñuy waxtaane oh. njariñal waxtaan wi mooy ñu xam ne science dafa nekkewut ne ñëw pour jox doole mouridisme wala littérature nekkee ne ñëw bu dox doole mouridisme déedéet soo ko nattee ci ne mouridisme mooy lan mooy al muridiya ndax bu dee ci mouridisme contexte colonial isme c'est dogmatique ñoom dañ ko structuré ba mu nekk loo xam ne maanaam dafa mel ni dafa am euh, euh, xeetu gisin idéologique moo tax ngay dégg ñu naan isme fii mouridisme uh-huh. euh, euh, fédéralisme nangam ak nangam uh-huh. xalaatiin bi mouridisme déedéet loolu tubaab bee ko wax waaye muridiya du xalaatiin uh-huh. muridiya l'islam gu nu yeesal ba delloo ko ca cosaanam ak islaam kon jumtukaay dégg nga sëñ bi ni wax ci tasawdu shubaan ne na ngeen tàmbali ci na ngeen tàmbali ci xaqaida sunniya mujarradatin an loolu loolu na ngeen sàkku xam-xam yéen waxambaane yi ngir ëllëg bañ ragal gàcce ngeen ragalee gàcce ëllëg yo shubaanu in xiftum xajal fa qaddimu taalluman ala amal fa qaddimu xaqaida sunniya gis nga sëñ bi saxal na ko ca fa mu war a soxoo waaye ba mu ca toppee ba ko toppee ba ci gën lan la dala wax ne la jumtukaay jumtukaay wa ba'daha la budda min alaat min jumtukaay uh-huh. jumtukaay yooyu nag science mooy outil yooyu nag littérature uh-huh. yëpp a ca biir uh-huh. léegi kon nan a nana ngay wëlbatikoo bëgg a benn mbir mi mu mel ni dañoo jumtukaayoo ba noppi door a amuk jublu jublu ngay gi moom yàlla sunu borom léegi nag jumtukaay yooyu ana lan la ci lislaam def ana lan la ci sëñ Tuubaa kay loolu nag mooy moo mat digg-digg ñu versé tuuti ci littérature littérature li tax ma naan seen combat bu may mëne moo di dafa jaadu ñu ni ñu sëlëmee nit ñi ak suuf ñu sëlëm leen ak ndox ba ñu mën a gis sëñ bi àddina li fi nekk ci am mbind nee naa la topp ko ba mu jeex seetal ma bindkat yëg gën a limal ma ci koo xam ne bind na junniy téere topp ko maanaam man kay maye naa ñu topp àddina bam daj amul amul amul waaw léegi ñu jël sëñ bu mag bi man dama ne la kenn jëlal yi nit neel kenn ku ne damaa bëgg nga fekk ma barab bii indil ma benn téere bu sëñ bi bind bu bokkut ak kee une heure de temps laa may keroog ba mu ko waxee dafa am ku ku bind message ne ma diwaan bi ma yor day am na 693 téere yoo xam ne sëñ Tuubaa benn diwaan benn léegi nag mu des à la différence de nit ñi ñu comprendre littérature demal ci dictionnaire dañ lay wax littérature dans son approche esthétique rafet bi taar bi mbindin wi jamaalu xat yi nga xam ne nit ki mën naa bind mu rafet lool te ne mu bind lépp di xas doom jàmm dafa amoon njëkk lislaam dëgg la nit ki mën naa bind mu rafet lool jub lool mu yàq xol nit ki mën naa bind mu rafet lool te lépp di loo xamante ni safaan la waaw sëñ tubaa nag moom la mu wuuteeg ñooñu mooy la mu wax ak tubu naaqilan min allaw wa min qalami wa fil xuruf xam nga kooku déclaration solennelle mhm. mooy maa ngi leen di yëgal na xam nga Masaalikul Jinaan wax na ko dafa ne bu leen xool ñuulaayu yaram wi mhm. ak féetu gi ma féetewoo ci Afrique soowu jant bi mhm. ba tax ngay wacc wala ngay dëddu sama mbind booba dafa bëgg décomplexe nit ñi ba ñu xam ne ajuwut ci génération bu bees bii la bokk waaye yàlla suñu borom mayam nee naa la ligne droite la amatul tàmbali amatul fu mu yem kon bu ngëneel gi bu ko aj mukk ci segment de la même façon noonee la defee déclaration solennelle wax la ne la maa ngi lay yëgal ni sama mbind mi minal law maa ngi toxale su fekkoon dama yor xalima su ma dee cap daaga ma yor lawhul mahfuz sabbata fi lawhul mahfuz uh-huh. mooy lawhul mahfuz sëñ Abdoulaye Mbacke dama ko waxee moom sabbata la wax mooy du fu ñuy bind ka far uh-huh. ndogalu nee na li may bind foofa laa koy jële lam amin fil waroo fii lam amin kon nag xamal ne du ma juum ci sama mbind léegi nag mbindam ana lu ko tax a jóg moom sëñ moom liggéeyam dafa wax ne wa sunnatuhu insha rabbi ubayyi sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunna nag il faut ñu dégg ko ci ñaari dégg dégg ko ci sunna ni mu doonee farata ak sunna dégg ko ci wa sunnahu ya sunnahu ittaxasat tarixa mhm. lu ñu yoonal mhm. sann ya sun baat bi lu ñu yoonal mhm. lu ñu sartal lu ñu omologe nga xam ne dana nangu lii du nangu lii mu ne wa sunnatuhu insha rabbi ubayyin kon moom sëriñ bi liggéeyam mooy lan moo di dëgg-dëgg li tax yàlla sunu boroom yabal doomu aadama ci kaw suuf lan moo di dëgg-dëgg li tax yonent bi sallallahu alayhi wa ñu wàcce ko makk mu fekk fa réer leeral xol yi ba tegaat leen ci aw yoon àddina dem nit ñi seytaane bakkan bànneex ak daraja ak cër tax ba ñu soppi yoon wi mu dellu siwaat moom sëñ bi tegaat mbir mi ci yoon kon nag naaxilan min allawhi moo di sama mbind na la wóor ni lu ma ci bind luy defar la kon sëñ bi waxuma ne esthétique bi mhm. esthétique bi da ko dàqale ñëpp kon suñu yemoon ci esthétique kon ba tey mën nañu wax ni wool ma koo xam ne ci àddina ci mbindum arab bind na lu rafeti ni lu toll ni sëriñ bi bind ci diversité linguistique bi amul amul ba far mu sos ay ay baxru yu bees tàq yoo xam ne ci moom lañ ko xam yoo xam ne ci moom lañ ko xamee uh-huh. waaye waaye nag esthétique sëñ bi foofu nag laa bëggoon dem esthétique u sëñ bi fond informatif spirituel bee ko ëpp doole ay antal karimu annal xadim uh-huh. dëxëran udimu ci kasanaayi lu mu rafet-rafet la na ca biir ca tarbiyewu la na ca biir uh-huh. ca ca ca ca jihaad uh-huh. la na ca biir ca ca ca ca ca pas-pas ca biir ca yitte la ca biir ca defar doomu aadama moo ëpp doole rafetu mbind mi te rafetu mbind mi kenn jegew ko ci léegi kon kooku suñu ne littérature mu def ci lu mel noonu je parle de fond et de forme nga door a dikk ci diversité thématique thématique mm-hmm. surtout loolu diversité thématique mm-hmm. koo fi gis dañ naan la dégg nga sëñ bi li wax ci Masaalik dafa ne am na bànqaas boo xam ne day defar day defar jëf yi ci mu ne loolu mu ne loolu euh, ci ci islam mu ne loolu fiq ko yóbbaale uh-huh. mu ne am ci bànqaas boo xam ne day defar xaal yi uh-huh. ci xol yi uh-huh. te a koy def léegi nag am ci ñoo xam ne tawxiid gi ngëm nga lañ xam xam-xamu ngëm gi tawxiid nu ñuy wéetale yàlla mën nañ la caa bindal téere boo ci wàññee ñaar fukk fa la yem ñi ne fiq lañ lay bindal ñi ne tasawuf lañ lay bindal sëñ bi dajale yooyu yëpp benn bu ci nekk mu def ci loo xam ne mhm. d'abord un travail de chercheur scientifique muy li gën a jafe la synthèse scientifique mhm. li am fee am fee am fee déggin wi jafe mu mhm. jàppa dal maa axtisaarin jullama ah, farraqahu amoon nañ ci ay wuute ak i ak i ak ak defin ak xalaatin yu yu yu am njariñ nag mhm. mu fexe ba li ëpp ca la ca am njariñ dajalewaat ko mhm. waaye def ko doxalin méthodologie scientifique buy tax mu jàppandi mhm. ci déggin wi ci xamin wi ba nga mën a jëf ndax daf la wax ne al ilmu wal amal jawharaani xam-xam ak jëf ñaari gànjar la waaye nag xam-xam jëf bu teguwul ci xam-xam nee na amul njëriñ mhm, mhm. Ah, kon léegi nag mu daal di ñëw diversité thématique thématique bi diversité thématique boobu mu jël tawhid fiq ak tasuf ñëw ci diina ji mhm. ba noppi nag jël jumtukaay yi jël jumtukaay. sant tuttu laab. taalif ci naxu. taalif ci naxu. Mhm. ñëw ci santé. Mhm. ñëw ci environnement. Mhm. ba noppi nag di jëfandikoo li nga xam ne loolu lañ tuddee la littérature engagée. littérature yu bari yi nga gis ñu di leen dégg ba tax ñu di leen naw dañ naan c'est des littéraires engagés. parce que dafa am lu taxaw. loo xam ne lutte communautaire la. wala idéologique ñu jëfandikoo seen bind. ngir taxawal peuple bi ci kanam. mel ni dañ koy xeexee waaye sëñ bi nag kan moo ko gën a engagé ci littérature jëlal téere yi ilhamu salaam jëlal téere yi ilhamul wudu jëlal téere yi yaa jumlatan jëlal téere yi asiru mahal abrari jëlal bu mu ci manti nekk di nga sentir sëñ bi ni mu toll fa yàlla sunu borom tasawuf ji ni mu waaye laa udaahiru musrikan la mu waxoon géej gi uh-huh. xalilan xabiban lillazi karramal janba yow géej gi maa ngi lay maa ngi lay xamal ne bis ne tey xol li taatu engagé uh-huh. engagé boo xam ne subaas bi uh-huh. ngëm la di gëm ak yàlla rafetug mi am na waaye la ko law la ko lal la ko taawu ngëm ak jaayanteem diggam ak yàlla ayaa baxru yow géej waxit wéetalal yàlla laatu sallis fa rabbuna bu ko ñette te booba dañ koo waxoon ne ko ñi ngi lay yóbbu mais ñi lay yóbbu nanguwuñu wuñu qul huwa allahu ahad te moom moom la signé te bureau ba ca ndaal qul huwa allahu ahad mu ñu yóbbu ko foo xam ne dañ ko doon faagaagal faat ko ngir mu bañ a delsi géej dong la gis géej dong mais teewlu digg mag yàlla jël na géej gi def ko def ko jaamu bu yàlla mhm. wóolu yàlla mi nga xam ne lu ñu bind moo tax mhm. moo ko bind wóolu ki nga xam ne ku ñu bind moo tax mu yent bi saa sama ne ko ayaa bahru wahid mhm. maanaam même nasaraan ñi ko doon ñu doon wax ak moom sa méthodologie scientifique et son approche d'esthétique littéraire teewul wahid la ko wax wéetalal yàlla waxu ko donc xoolal ku doon ku doon ku seet mbind mi rafetaayoo soo ca yemee juum uh-huh. waaye soo seetee la tax a la la la la la lal lal taay rafetaay wa muy ngëm dëgg la sëñ sëñ Assane bi waaw bi gannaaw thématique bi nga wax nii mm. uslub bi muy terme yi sëñ bi jëfandikoo nga xam ne ay mbindam boo koy boo koy liir mm. day yomba xam mm-hmm. day yomba day yomba dugg ci sa xol. te li mu làmboo sax dafay mel ni dafay ñu baree bari ñu ngi jàng xasida tey mbindi sëriñ bi. xamuñu sax maanaa yi maanaa yi sax xamuñu ko. xamuñu ko waaye teewul dafay am lu muy changé ci seen comportement. loolu itam lu lu lu lu lu ñu seetlu la. waaw ndax xam nga loolu. dafa am dafa am lu xóot lu ci ne. loo xam ne diggante euh, liñ naan matière brute. matière consommable xam nga objectif de la communication c'est de rendre consommable une matière brute incomprise et nécessaire à l'être humain maanaam yàlla sunu borom bi mu wàccee alquran ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga dafa wax dafa wax ca biir ne euh, ca ca bopp rek dafa wax ne laa rey ba fii uh-huh. hudan lil muttaqin bul sikki sàkk dara waaye léppam njub la kon kon ni ko tax a jóg njub gi la waaye du du njàng mi ah, njub gi na ci biir nag léegi nag ana liggéeyub rendre consomable mbind mi maanaam jàppandil ko ba nit ki jote ci njub ga ah, loolu la sëñ la sëñ bi liggéey ba ba nga xam ne ci mbindam da nga cay yëgee yàlla dafa dafa jàppandal yëgin wi ba taqale la yàlla moo tax nga gis muy wax ne ilaa ilaa tawalifi yaquudullaahu asrara laa ilaha illa allah uh-huh. yuusilu xatti man yuridu tarbiya wa man li rabbihi yuridu tarqiya uh-huh. tegaati ilaa tawalif yaquudullaahu irshada irshada laa ilaha uh-huh. illa allah xam nga loolu ba tey ku yàlla sunu borom wanul mbóot yi doo moo tax gis nga soo seetloo yonent yàlla Suleymaan jamono ji nga xamee ne seytaane jaar na fa ak jinne yi ba jaxase mbir mi ba jinne yi jël kanam bi wëlbati ko mu ñëw nekk gàngu naay ga nga xam ne jaaro ba ko yàlla sunu borom baaxe woon tax na mu mën faane moom ku ki nga xam ne du Suleymaan waaye diggante boobu nga xam ne yàlla sunu borom ba mu ko nattoo fan yooyu rek jinne yi nga xamee amatuñu woon kilifa ñii bew nañ ñii jaxasoo nañ ñii fetteerlu nañ jaxasee mbir yi ba keroog mu ñëwaat tee yi waaye lañu doon yor ba tey ji yeggul lawhul mahfuz moo tax dégg nga yàlla sunu borom Sëñ Tuubaa li mu wax ci jës bu di wax ne turida fiiha bin nujuum ani samaawaati rajim wa farra yu liin ña nga xam ne ci jinne ya dañ daan sàcc ndee yi ca asamaani yàlla yi turida fiiha daqees ba yontu saa sam gane àddina rek yàlla daf leen fa dàqe joteetuñu fa foofu nag ku fa yàlla jotewul xamoo amoo xam-xam foofu nag la suñ tubaa wax ne naaqilan moom suñu borom daf ko faa jotale ba tax suy toxalee foofa di bind jaam ñi ginnaaw yàlla bind seen xol te la ñuy doxalee fee ca yàlla mooy la sax fa yàlla faw dañu ko yëg buñ ko xamul sax dañu ko yëg buñ ko xamul sax dañu ko yëg ndax dafa rendre consommable yëf yàlla yi nga xam ne ku ko yàlla xamul xamul loolu tax xasaa xasaa it doy waar moo tax mu ne la nag yàlla sunu borom defal nama ci asraar laa ilaha illa mbootum laa ilaha illallah ba tey maa ngi ci science littérature ak mouridisme laa ilaha illa allah la sëñ Tuubaa tasawdu sixaar wallafzu laa ilaha illa allah muhammadu arsalahul illaahu afdalu maa nataqu man yasku baatub laa ilaha illa muhammadu rasulullah sëñ Tuubaa afdalu moo gën ca loo xam ne aji sikkar ma koy sikkar ndax wa fii ci baat boobee sëñ Tuba wax na ne ngëm gépp a ngi ci biir gëm yàlla ak nañu koy gëme kenn la moom yàlla maa in lahu bi daati wal wasfi ah, wa fi afhaalihi amul kenn koo xam ne mel nga ni moom ci jëmmam walla ci jëfam wala ci melow hmm? wa waahidun kenn la moom yàlla wasooxi laa fi bari bariyati maa wuute naag mbindéef fi kenn melut ni moom wasooxi nan bi nafsihi boppam doy na ko ca tasawdu subaa mu ne wa qaa'imin bi nafsihi taxaw na ci boppam ah ba tey ci tasawdu si xaa mu ne la kallat fi karu nit lot na ci xalaat ba xam dara ci sifaat sifaat ba yëpp dégg nga léeg loolu lépp nag nee na mi ngi ci biir laa ilaha mm-hmm. muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee na ngëmuk yonent yi yëpp a ngi ca biir mm-hmm. nee na nag loolee lépp nag sunu borom mbóotug loolu defal na ma ko ci xasaay bi xam nga ne kon ginnaaw mbóot ya sunu borom a ko xam su ko ko defalee ci xasaay bi kon su ko jàppandalee mooy def ñoo bëgg a dimbali loolu tax xol yi di ko yëg te duñ ko xam. ce que jotul nag ñu systématiser nag thématique yooyu nga xam ne sëriñ bi doon na ko kii. waaw jëm ko jëm ko teg nag. Mm-hmm. waaw ngir gën koo mën a jariñoo waaw loolu loolu nag loolu nag moo tax xam ne kon mm-hmm. liggéey nag war nañu. Ah, parce que euh, ñun ñëpp dañuy waxtaan ci sëñ bu mag bi mais dafa am diggante boo xam ne dafa mel ni euh, maanaam facilité àddina daf ñuy fëkk ba ñu ban koo xool ñun dañuy dem ci sëñ bi def na nangam ci ci kiraam wala sëñ ba wax na nangam ci xasaay ci xasida gi ci xar baax yi rek waaw mais sëñ bi avant muy wax yooyu dafa am loo xam ne li nit ñëpp di ndamoo fi ñu toll ci approche littéraire et scientifique de façon tangible sans baatin dañoo gis mu def ba defal ko ñëpp mooy sëñ bi daa jàng jàngale bind bindulu hmm? taalif jël lamu taalif muy jariñe di faj di defar doomu adama ba tax nga mën a toog tey ne téere bii nuy jàngale xam-xamu diine sëriñ bee ko bind téere bii nuy tarbiya xolub doomu adama tar tarqiya sëriñ bee bind téere bii nuy jàngale langue arabe arab naxu grammaire sëriñ bee bind téere bii nuy jàngale tiggin muy les sciences humaines parce que sciences yi les disciplines scientifiques les sciences humaines en font partie et sciences humaines yooyu entre anthropologie li ci sëñ bi def kenn defu ko parce que nit ñi sciences humaines yi ñuy jàng c'est les sciences humaines homologuées selon le degré d'entendement de l'être humain avec ses besoins maanaam nit ki li soxla ci digg jamonoom sëñ bi moom sciences humaines yi mu jàngare mooy lu ñuy defaree xolub doomu aadama ak jëmmam ba mu mën a jariñoo xam foofu nag da ngay am dara fa yàlla loolu ko mën a jàng waaye léegi sëriñ bi jàngale yooyu yëpp bind ñu gis calligraphie gi ñuy wax mu bind jàngale téere mu bind édité édité après science tam dafa am lu ñu la wax ci règle de science mooy la vulgarisation de la vulgarisation bi science non vulgarisé amul njariñ mhm. amul njariñ alors vulgarisation science yi su chercheur bi di gëstu su gëstu dañ ne dañoo bëgg mu trouver mais su trouver dañoo bëgg la mu trouver mu def publication publication de la recherche scientifique mais publication recherche scientifique bi amul njariñ su fekkente ne résultat yooyu mënuñu ko actualiser ci ay besoins tangibles ci la vie sociale. mu réglé ñu suñuy problème mu réglé ñu suñuy ah, problème léegi nag sëñ bi moom dafa bind. def promotion de la science. Uh-huh. def vulgarisation de la science def actualisation des résultat de recherche scientifique uh-huh. ba tax tey nga mën a gis doomu aadama mu nuyu la nga gis ci moom ab yar. Uh-huh. yar boobu nga gis ci moom da koo jàng ñu def ko ci moom sëriñ be ko bind. mu modéliser ko. loolu tam lu mat a bàyyi. Mm-hmm, mm-hmm. mu modéliser ko mm-hmm. ba ñu mën a xam ne nekke nii lañuy ñuy tarbiya doomu soo jëlee tey jii euh, système de modélisation du murit danga naan maam Cheikh Ibrahima ndax jël nañ ki bëgg àgg ci yàlla sëñ bi daal di wax ne sifaatu saadixil mooy di bexti saa arbaatan nazamtoo xaw faxtira asidqu fi mahabbati cheikh abad am imtisaalu amrihi haysu wara da nga li mu ngir bañ kenn waru maa ngi lay dégtal sifaat melo yi nga xam ni mooy dëgg-dëggi melo yi ka war a doon ka bëgg a doon murid saadiq ka bëgg a yëg mu ne ba ca jiitu asidq fi mahabbati cheikh mooy dëggal gu wér bëgg ngay bëgg sa sëriñ mais sëñ bi waxu ko rek sëñ bi lim ñu wax moom doo ko def ba pare xam nga loolu la si lu mat a bàyyi xel il faut que nit ñi xam ne sëñ bi lu jàngale da caa jaar ba pare mahat mahabbatiyal muxtaar sayidana hubbil maghaniya wal ahlina wal walada loolu mës ngaa dégg ko ko ci bëgg bëgg nit bëgg yonent saa sam bëgg gi ko bëgg moom yonent saa sam far na ci man effacé na ci man possibilité mënatul am beneen possibilité de bëgg donte doom doonte njaboot yemuma ci dammi moo sang wa ahli ak samaw ñooñ wa awlaadi waa kër gi yëpp fidaa un consentir en sacrifice ngir moom yonentu sa ça veut dire quoi ça veut dire que man existé donc kooku bu nee a sidq fi mahabbati cheikh moo jiitu dafa modéliser mbir mi mais Cheikh Ibra Fall ñëw nekk le model modèle bi pratique nga xam ne mu ko pratique. Mhm. moo tax kon su fekkoon ne dañ naan laboratoire mhm. kon Cheikh Ibrahima laboratoire. mais ki yor laboratoire bi Sëñ Tuubaa mhm. mais dafa expérimenté ba pare diggam ak Yonent bi sallallahu alayhi lu mu la wax ci ak taalibe bi ni mu war a demee da ko doxal ba mat sëkk ci anam woo xam ne kenn mësu ko def ci Yonent bi sallallahu alayhi waaw donc ñun kon bu sëñ bi defee loolu yëpp léegi ñun nag. xanaa am nañ wàll nag. wax dëgg yàlla. kon normalement murit bi war naa xam ne si on parle d'écrivain wax dëgg yàlla les plus grands écrivains du monde buñ koy wër dañ ko war a wëri ci murit. ci parce que moo jaar sa sëriñ dafa jàng jàngale bind kon da war a jàng jàngale bind sa daa gëstu bind jëfe modéliser kon da ngaa war a gëstu tu dois faire partie des meilleurs en médecine. en mathématiques en physique mais bu yemee ci théorie bi am naa sama diplôme je suis mathématicien amul njariñ amul njariñ da ko war a actualiser dans la recherche avec un système de vulgarisation qui permette de rendre consommable waaw fexe ba xam-xam bi ñu mën ko jëriñoo moo tax sëñ bi wax ne xam-xam jàng ko ba noppi te jàngale woo ko nee na booba xam-xam bokkut ak xam-xam bi ñuy wut xam-xam bi nga wut wax na ko ci Masalikul Jinaan vers quatre-vingt-un xam-xam bi nga wut ba noppit ngir bëgg nit ñi xam ne xam nga bokkut ci xam-xam bi ñu si nag ñun war a defaru waaw dëgg la bu ñu xoolee ci littérature mouridisme li tax ñu war a gën a góor góorgóorlu mooy tey ci histoire sëriñ bi rek bu ñu demee ci histoire sëriñ bi yar yam ci rek mm. dañuy xool euh, ressources yi ñu ci am maraaji yiñ ci am da nga naan irwa un nadim mm-hmm. sëñ Mad mi Joob Dagana da nga naan minanul baaxil xadim mm-hmm. bu sëriñ Bachiru mm-hmm. danga naan euh, sëriñ Musaa Ka ak jamono booba ak jamono booba ak effort yi ñu def ba tey kenn mën a mënta wax ci histoire sëriñ bi te loolu moom du say maraaja ndax kon jotutoon tey ñu gën a mën a développé yooyu ba mu gën a mën a tasaaroo waaw loolu nag mooy sas bi ma la wax waaw et jamono boobu mm. ñoom amuñu woon technologie bi. léegi ñëw jamono boobu seetal nan lañ doon def ngir mën a sotti am mbind. mu jaral nit mu jël fas jël dongo boole kook moom mu mën a toog barab ñaari weer ñetti weer tarbiya nit ngir rek tarbiya wu nit ngir rek làq ngërëmam ba ñu mën ko jox téere boo xam ne dañ koo bëgg a uh-huh. léegi yow da toog. ñu jox la nga dugal ci imprimante imprimé yow lan nga def yow lan nga lu yow murit bi ba gëstu ji ko gëstu nag pour publier ko bala nga ko def da ngaa jàngi xam nga kon day del si kon ci ñu xam ne euh, signal fort bi sëñ Muntaxa Mbàkke joxe à travers l'université signal fort yoonu murit nii ñu koy jàngale ñun ñoo war a réviser waat ñu koy jàngale yoonu murit dangay seet na mu sosoo ci xam-xam la soso sosoo wut ci riwaaya sosoo wut ci nettali ci xam-xam la sosoo jàng ak tarbiya ñu defar la ba nga mën a defare donc ñun sunu génération ñun lan la ñu def question bi aussi loolu la mhm. daara yi am na mais daara yi il faut ñu delloo leen ca la leen taxoon a jug moderniser daara baax na waaye moderniser xam-xam moom waxuñu ko alaat yi nag moom modernise jumtukaay waaye nag xaqaayida sunniya yi mm. kenn du ko laal inviolable kenn du ko laal kenn du ko laal mm-hmm. jàngal xam-xam dalaa war xam-xam uloomu diin uloomul quraan mm-hmm. jàngal xam-xam xam xam luy luy ab bi mm-hmm. waaye xam leen sëriñ bi ndax sëñ bi daa xam la yonent bi sallallahu alayhi ba tax tey jii inal kawaaki ba yox fiiha sinimaaru sinimaaru loolu boo tax mu lu tax mu doon ko wax mhm. mooy dafa doon bañ kenn dafa ne laa taxiis ibn abdullahi min fudala sooy lim nit ñu baax ñi ak gaa yu baax yi bul ci boole bul aligné yonent bi sallallahu alayhi parce que bokkuñu ligne mhm. lam ca jubloon daf ko doon démarqué ba ñu xam ne imaamul mursalin donte xaatimu nabiyin dëgg la moo mujj ñëw waaye imaamul mursalin ñëpp moo leen jiite sëñ bi liggéey ci liggéeyu débarqué ko ba jox ko place boo xam ne kenn mus fay mais moom sëñ bi lam ci am sëñ Fallou Mbacké nee na yonent bi saa salaam la mu doon ci ci yonent bi saa salaam gannaaw booba yàlla suñu borom waxee ne inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi waa wasallimu tasliman ba ko sëriñ ba xamee la wax ba ko sëriñ ba xamee ba ñëpp juum jëm ca liggéeyal ko ba ko sëriñ ba xamee rek la daal di fëkk jëm ca waaye leen da caa def ba def ci loo xam ne kenn musu ko def bi himmatil xaali mhm. léegi ñun ñun lan la def ba nit ñi mën a jariñu ci sëñ bi mhm. ñun amuñu droit liggéey luy tax nit ñi di réere ci sëriñ bi dëgg la sëñ Assane foofu lay duggee sax nag ci sa taxawaay ci fànn googu ndax gis nañ ne ku am taxawaay ci fànn googu te ku ko teel a am su ma juumul bi ngay nekk étudiant nga commencé di bind di xalaat ci sëriñ bi ak eh, jaar-jaaram ngir nit ñi gën ko mën a jariñoo tey àgg na ci fu baree baree baree bari dëgg eh, yaakaar naa ne waaw eh, collection bi ma bi ma yore ci sama loxo mm-hmm. mu tudd Maam Bamba mm-hmm. xëy na moom mooy bi nga ci mujj def. boo xamante ni six volume la. boo xam ne day jàngale rek euh, sëriñ bi ak ay jaar-jaaram. dëgg la waaye li ci gën a doy waar mooy ci làkk wi. ngir mu gën a mën a jege nit ñi. dëgg la <laughs> làkk yi mu ngir mu gën a jege nit làkk yi waaw yi. alali suñu borom la. ma ngoog. alali suñu la. Euh, euh, loolu loolu ñu mën cee tontu tontu tontu sant yàlla la. Mm-hmm. waaye tontu soññi ko. ndax livre bi ma njëkk bind classe de terminale laa ko bind. boobu élève la maa ngi ko tuddee the route of the service le parcours inédit du serviteur chez Amadou Bamba ci anglais laa ko bind waaye cëslaayal bind gi moom laa bëgg indi moo di man dama nekk élève nekk daar Hizbut Tarqiyyah nekk cellule de recherche pour nga xam ne kon chercheurs yi li tax ma ne dañu war a décomplexé mais ñun noo chercheur ñu ngi ci daara yi daara yi ñuy wax demal xel koom demal njulul les chercheurs gone yaa nga fa ay chercheurs lañ mais comme homologation waxut système bi ni mu ko defaree waxut ne boo jigee xel koom chercheur nga duñ leen tuddee chercheur mais nun ba ñuy def recherche booba élève lañ nga xam ne tabari yi chronique tabari yi quatre volumes da danga koy jàng ba mu jeex tàkk téere xam yi da ngay jàng ba mu jeex tàkk xasida yi da ngay tari bala ngaa jàng bala ngaa yëkkati da ngay tari. waa jàng ba ba ba mokkal texte bi ba noppi. téere xam yii da ngay tari ba noppi. Mhm. sa bind. Mhm. door a jàng firi. loolu recherche mhm. parce que bi document bi nga yor ka mooy ngën ngi bind kat. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa bi yàlla sunu borom def nabiyul ummi seetlul bu baax ki nga xam ne dañ ko wax ne ko gën lu yàlla bind lu ñu bind yaa tax xam ci sa loxo la ne ñu ne ko munoo niir munoo bind soo amee xel da nga de xam ne bu dee bind mooy borom bu dee liir mooy borom dañ ko ko def loowul waaye moom da ko jox sunu da ko jox Sëñ Tuubaa kon document documentation sëñ Touba mais élément la ko gën a riche ci élément de recherche kon chercheur nga léegi nag ndax góogeen nañ la ba nga yegg ci nekk chercheur homologué ba ñu naan chercheur la loolu mooy wax ji uh-huh. kon ñun foofu lañu amee liggéey li tax man la ci Israël bind livre boobu uh-huh, uh-huh. damaa liiroon texte ci anglais bu ñu bind di présente sëñ bu mag bi am ay té bind ay vers ay abyaatu sindii di ñu ci firi woon ñu firi ko firi ko firi moo xam ne soo deful attention ak ni nga gisee sëñ bi da nga jàppe sëñ bi mhm. comme benn wulamaa benn waay rek benn waay bu am xam-xam kay mhm. léegi nag mbir ma def ma def ma yittey xaal ma ne tontu bi du du naqarlu ko mhm. tontu bi mooy dangay gëstu ba bind ci làkk wa ñu muy anglais nga bind pas lu weddi lii parce yoonu sëñ ñun ñu fu ñuy weddee nangam ndax ndax sëñ bi dama ku digle mbir tere nga safaan ba nga waxal li am rek waxal li am <laughs> waxee li am bu leeree rek ku ne da nga xam ba nga féete waaw léegi nag loolu moo indi livre bu njëkk boobu ñu defoon ci anglais mais pour te dire soññe man anglais laa ko def waaye jubluwuma woon ñu édité parce que bu fekkoon édité war naa xam ne dëkk bi ñu nekk français la ñu waaye gannaaw ga laa dem ba ñu ne ma lii kat war ñu joxewaat ko traduire ko ba mu ko yóbbulee sëñ Saliou pour ma wax la niveau maanaam sëñ bi ak yoon wi ni ñu fonke xam sëñ bi mooy nañ ko def arab mm-hmm. te boobu jamono ci la ma ne nañ ko def arab moom sëñ ñu doxaat ay jamono ñaar ñeenti at ci ginnaaw bi asafilaa juróom juróom benn at sax mm-hmm. mu ñëwaat ñëw fa fekk fa sëñ Saliou Jaxate mii ak ñenn ci waa kër gi ne sëñ bi kat man bi yoon dama ñëw ngir noonu ñaan ndigal ngir xale yi ndax ni sëñ bi wax ci tasaw du sixaar ah daara daarakal la si xat faata ki nga xam ne dafa dafa dafa dab dabaatal la ko faatoon ca ba muy ndaw te defu ko woon ah ci dundal waxtu ya kooka dana mel ni kat euh, euh, euh, dabuwaat ma ne ko dama bëggoon nag bi yoon nag ñu bindal xale yi lu leen di jàngal sëriñ bi ndax jàngalewuñu ko ci ecole yi uh-huh. ma doon ci laaj ndigal waaye dama cee bëgg a boole nataal uh-huh. ndax sëñ bi boo ko wax da nga wax lu leer uh-huh. waaye nag danaa sàmmoonte ak teggiin yi ba nataal bu nu wone dana dëpp teggini lislaam xam nga kon loolu war naa dellu ci la sëñ ba wax kasatul ilmi moom bi xëyri adabi amul njëriñ kon bu amee xam-xam bu amutu teggin danga def nataal woo xam ne nit dana ko xool am kees mm-hmm. Mm-hmm. mu jox ma ci ndigal ba soññi ma ba soññi ma soññi laa wax de woote mm-hmm. ngir laaj fu ma ci tool ba keroog looloo waral mu njëkk génn ba génnaat nii ba kon gis nañ ne six volume la volume bu njëkk bi la grande causerie du crépuscule deuxième bi Touba est grand Baye Fall de Bamba et le grand Baye de Bamba troisième volume bi le grand face à face quatrième bi l'exil de Mam Bamba cinquième bi un retour triomphal sixième bi au service de la paix dafa mel ne six volume bu ci nekk waaye man méthodologique bi mooy sama problème mhm. waaw waaw nga xam ne tey ndaw ñi bàyyi nañ leen xel. te ndaw ñooñu ñooy ñooy màggaale. dëgg la xam sëriñ bi. dëgg la surtout nag wax nga lu am solo. Mhm. fexe ba. Mhm. ñàkk gi ñuy ñàkk jàng sëriñ bi ci mhm. ci ci ci ci ci école yi. lii dana may opportunité. njaboot gi ñu mën a ñu mën leen teel a nàmpatal ci sëriñ bi ñu xam ko. waaw ndax ndax ndax loolu. loolu ñun sëñ bi sëñ bi ñun nee naa la lépp lu mu ñu digal xamal ne diggam mag yàlla ak yonent saa sam def na ko moom. ndax su su bind wutoon tasaw si xaar rek nga nga jaaxle ko ba yóbbulu ndaw ñi mhm. da koo wax kon ndaw ñi da koo ñor sëñ bi kun kaati man sëñ bi ndaw ñi da leen a ñor naaju xadaa ilhaj mhm. jababu penda jóg mhm. yooyu yëpp da koo def ngir préparer ndaw ñi mais léegi nag su fekkente ne ñun gëm nañu ne xam-xam yëpp ci yàlla la yàlla comme une droite amul tàmbali amul fu mu yem kon ñun war nañ mën a tolloole science ak technologie ak littérature ci jamono toll te du tax ñu soppi yokk bi du tax ñu soppi loolu lañ jublu ci lii masalan la grande causerie du crépuscule mmh. ma tënkal la ko dañu wax ni xale yi dañoo dajaloo mmh. am ku ñu jiital kooku ñi jiital ci livre bi mi ngi tudd Cheikhouna mmh. xam nga ne kon méthodologie bàyyi naa xel méthodologie waaw dèjà kan la ñu jiital tur woowu rek bëgg naa ci njëlbeen rek ñu jàpp ndax seexu naa woowee ca fin ba la nit ñi di comprendre nekke turandoowu sëñ bi la seexu naa moomee nag ñu ne ko yow jiital nañ la ci mag yi dëkk ba mooy ki ñu tuddee grand-père maam ngir ne ko ñun gone yi yëpp ñoo dajaloo jël suñu kàddu jox la ngir nga laajal ñu maam ne ko dañoo am kersa ndax nit ñi di fi ñëw waxtu wu ne naan ñun touristes yi tubaab yi yooyu di ñu wax maam Bamba ndey dañ suñu maam bu baax la te ñun xamuñu ko te loolu ñu am ci kersa bëggoon nag bis ni tey ne nu fi jóge feek waxuñu kan mooy maam Bamba mi mel ni sëñ Mbay Jaxate mm-hmm. dinaa am li li may wut mbaa ma dee ci sa bunt bi <laughs> waaw waaw ma maam nag mm-hmm. jël loolee def kow lay mm-hmm. di leen nag nettali nag waaye ci nettali bi nag amul invention amul invention amul leen luñ ci inventé amul dara luñ ci inventé su leen nee sëriñ bi kat da doon jàngale ak mbaax ba ngay sukkandiku ci nax ju xadaayil xaalis ñu jël xam-xam bi nga xam ne sëñ bi bind na ko ci arab wax ko ci waxiinu lépp ci nettali ba gone bi su jàngee loolee donte dug julit su ko jàngee dana xam ne sëñ Tuubaa jàngal na ko mu yaru noonu lañ ko jaaree ba gis nga ba mujj ñu ne au service de la paix. au service de la paix mooy nga xam ne kon sëñ Tuba léppam mm-hmm. jàmm la. jàmm la mooy jéggale na. Mm-hmm. en fawtu anil aadaay turan gis nga image boobu nga yor. Mm-hmm. mbokkum taalibe. mu mel ni moo téye. jël loxom teg ci mbagg yi. nasaraan bi ngir defal ko. xamal ko ne ak lu ngeen ñu mënoon a teg. ñun tey jéggale nañ ndax sunu sëriñ daa jéggale waaye nag du ñu tax a ko moo tax ba moo ko yóbbulee sëñ Muntaxa dama ko wax ne ko Mbàkke leen de laa lay ñaan nga dimbale ma ma lii ñu jàngale ko ci école yi uh-huh. mu ne ma da nga ci daje ndimbalal sëñ Tuubaa waaw kon méthodologie uh-huh. approche scientifique moom fii lañ ko fekk uh-huh. léegi nag la ca des rek mooy na nga fexe ba mu doon lu am njëriñ sëñ Tuubaa nag noonu la def ci mbindam la forme et de loin mooy importante que le fond waaye nag forme sëñ Touba tolloot ak benn forme artistique benn forme benn forme esthétique macha allah macha allah macha allah sëñ Assane euh, xam naa li ñu desee ci waxtu bareetul mm. waaye li ma bëggoon ñu kii ko rek mooy ndax lu mel nii mm. amee nii njariñ mm. fexe nañ ba mu bañ a mel ne bind yi gis nañu baree bari doon dañ jéem a bind ci yoon wi waaye bu ñuy buñ bindee dañ koy yemale fenn rek jël benn jox sëñ Ablaye Diop jël benn jox sëñ Assane waaye jéem koo yóbbu ci bibliothèque yu mag yi ci àddina bi ngir mu gën a mën a tasaaroo ak di ko traduire ci yeneen làkk yi ngir jeneen ñu mën koo gën a mën a tasaaroo ndax loolu yaa ngi ciy xalaat yaa ngi ciy dox jéego waaw moom kay fii ñu toll nii am na benn série boo xam ne série audiovisuelle la ñu tuddee ko Maam Bamba série nag bu ñu ko waxee ba tey encore day dellu si waat ci saytu gi saytu gi maanaam séeri boobee synopsis bi bi ma ko defaree ñu won ko sëñ Cheikh Bass ngir war koo defar daf maa booleek sëñ Mbàkke Abdourahman ne ma demal won ko bindal lépp li mu war a demal won ko ko ma jóge Ndakaaru ñëw ba kër sëñ Mbàkke Abdourahman fekk jot na ko ñaari ayu bés topp ko ba mu mat woolu ma ma ñëw mu topp xool ko ne ma gisuma ci luñ ci mën a laal lenn daal buggoon naa ñu boole ko ci mooy épisode bu jeex na am kenn ci mag mi ku ñëw wax ana lu ñu jàngee ci épisode ah. ma dem wax ko sëñ Cheikh Bass mu ne ma dama ko doon dama doon yoonal ndax mooy yoon wi waaye xam naa ne ndigalal sëñ Saliou Mbacke ba mu ko joxee rek la ma waaye nag teg ko ci yoon yàqu ci dara kon série boobu ñi ngi ci boo xam ne du duñ naan ay dañuy wane jëmmi sëriñ diw déedéet ay gone la ñu ne ci benn village comme ni ñu ko bindee. Mhm. ñuy waxtaan entre ñoom. mag ñi ci colin wu set wu sell wu yiw di leen jàngal Serigne Touba ak yoon wi ak liggéeyam ak lu nu war a jànge ci moom ba nit ñi baax donc loolu moom c'est en étude la ca des nag moom mooy fi ñu toll nii c'est dans les bibliothèques du monde ñi ngi traduire en anglais équipe bi nekk Chine ñi ngi koy traduire en chinois mhm. en espagnol et en arabe ñi nekk Maroc. étudiant doctorat yi ña nga ca donc fi ñu toll nii objectif bi du objectif commercial ndax sëñ Tuubaa bindul ngir koom dafa bind ngir defare ñun ñoo toll tey ci di wecci xasida yi ngir mu jàppal ne nit ñi mën caa jotee waaye mosut a bind ngir loolu nun ñii itam suñ dee bind waruñoo bind ngir koom dañoo war a bind ngir liggéeyal ci sëñ Tuubaa sàkku ci ngërëmam lay tax mu mu yegg nag mooy waral ñu naan édité nañ ko ñu ngi koy wecci et cetera waaye jublu gi moom liggéeyal sëñ Tuubaa macha ndax moom la ko waroon encore une fois digg mag yoon saa sa matal na ko sëkk la ko waroon digg yàlla matal na ko ko la ko waroon waru ko sax ci jul waaye lam nu dimbalee def na ko lépp ba mat bind na bàyyi wax nañu dégg jëf nañu gis li ci des ñun ñi la mhm. ñun nag ñoo war a fexe ba bañ a yaafus on doit être des chercheurs xale yi nañu jàng mag ñi bu kenn tayeel bu jàpp ne wees na ba noppit bu ñu complexé bu ñu complexé xam-xam fa yàlla la bàyyi ko mhm. nit dana xeeb boppam bàyyi fi loo xam ne moo ko ëppal njëriñ fukki junni yoon jéegaane loo xam ne homologation rek la te du ko amal benn njëriñ na nga resté nag dans l'homologation ba ñu xam ne bokkoo ci ñu réer dëgg la waaye nag bul complexé xam-xam alaalim yàlla la yàlla mooy aji xam dégg nga sëñ bi wax na la ci tasaw de sixaar ilmun wax na la ne la yàlla sunu boroom jëmmi xam-xam jëmmi xam-xam maanaam dafa war ci yow nga xam ni su amee ci ku mu nekk ci moom yàlla la waaye aji xam nga xam ne umpalewul dara su amee yàlla rek la kon loolu nag bokk na ci yow itam nga xam ne kala tegte teg la ci yoon di la tarbiya sunu boroom moom la gërëm ni sëriñ bi kon na la doy bul complexé. Mhm, buñ complexé te buñ buñ def luñ gis rek for ko yóbbaale. walaysa kullu ma tara mu dawara kaakan mm. walaysa kullu daw in xamara nee na bu ñu jaawale bu buñ gis lu roo rek ñu defee ne gato la ah. buñ gis leer bu ñu seen rek defe ne e, e, weer la ah, waaw loolu kon sëriñ bi mel na ne kii ne bu ñu gis bu ñu bu ñu gis përëm jaawale koog jaawale ko jaawale ko jaawale ko wurus ah, loolu xam-xam boobu nag mhm. mat na bàyyi xel xam-xam bu sell la sëriñ bi ndax la tax mu sell mooy naaxilan min lawxil xam tibbee ku dut moom tibbewu keneen ku mën di doon sa xel ak la nga jàng fa nga tibbee ku dut sëriñ bi xam-xam boo tibbee sa xel ak la nga jàng moom nag dafa wax ne naaxilan min lawxil fa yàlla la tibbee jërëjëf sëñ Assane jërëjëf sëñ Assane bëgg nañ lool ci jataay bi macha allah gis ngeen volume collection bi mi ngi nii di volume yu am solo yoo xam ne mm, war nañ fexe ba ndaw ñëpp jàng ko rawatina ñi nga xamante ni ay ndawi murit lañ ñu teete leen toqantal leen ci ñu jéem a xam jaar-jaari sëriñ bi te ci bindin wu rafet làkk wu rafet wu sell lañ ko bind macha allah kon Euh, mi ngi noonu ñu ngi leen koy présenté bu baax a baax a baax di sant di la sant bu baax a baax suñu Assane yaakaar naa ñu doon mm, seetaan xam nañ ne tey daje nañoo écrivain chercheur enseignant jàngale mu bëree bare bëri lu lu lamboo lu bëree bëri ci doon jàngale talibé waaye ni ma ko waxee ci njëlbeen gi nag danañu siwaat ndax lii nag ak ubbee rek la mm. danañ gën a xóotal jataay bi ñu ngi lay sant bu baax a baax ci la gërëm di la jaajëfal di la bàyyi nga ay tàggatoo waaw tàggatoo bi mooy ñi ngi sant ci déjà bunti xam-xam yi ngeen ubbi mm. ndax ñu ngi koy def ci wolof euh, baax na nit ñi xam ne science ajuwut ci langue mhm. waaw littérature ajuwut ci langue langue nag day porté mhm. ñun nag ñu bari ci ñun mhm. danga gis ku xarañ lool ci xam-xam bi ci mën ko bind ci wolof wala loxatul arab bi xamee ko ci anglais ñu jàppee ko ko xamee ci anglais bi nag booy mooy borom xam-xam mooy complexe bi waaw bi waaw kon nag dañu gën a dellu ci njàngalem sëñ bi mm. te sëriñ bi doy nu mm. ñu gën a laxasaayu te bañ gis sunu bopp ci dara waaw ndax ñun ñëpp ay jumtukaay lañ mm. bu nu gisul suñu bopp ci dara rek dana yomb waaw te loolu fekk ñu di ko def sëriñ bi dinu dinu gàttandu ñu ñaan Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg fi lool lool lool te ànd lii mënu woo ñun ñëpp ñu gën caa góor yéen nag bunt yi ngeen ubbi nag ñu yaatal ko nag. incha allah incha allah incha allah kon MKTV sant nañ leen. man nag am naa tawféex. Ah, ndax wax dëgg yàlla ñëw dafa waxtaan fii ci jumaay Tuubaa dëgg yàlla tawféex la. ndax xam naa ne xayma wu mu xayma xayma wuñu ko ci sama dayub xam-xam. <laughs> buñ ko ci xayma woon du ma fi toog. waaye nag yéene ji moo tax kon soññee la ci man soññee la ci ñu gën a ñu gën a góorgóorlu. jërëjëf jërëjëf sëñ Assane jërëjëf sant nañ bu baax a baax ci Pastef bi ak taxawaay bi mm. te liggéey bi daf dul liggéey bu tuuti mm. liggéey ci xam-xam dafay gënal dafa dafa gënal sëriñ bi ndax sëriñ bi li muy liggéey ci xam-xam daanaka liggéeyam bi yëpp xam-xam la liggéeyam bi yëpp xam-xam la kon bu ñu gisee ku ciy liggéey mm. dalal ko fii ci barab bu tel tedd bii di jumaay Tuuba euh, yaakaar naa lu lu lu lu jaadu la kon da nga ñëw sa barab te eh, ñu ngi bàyyi xel bu baax kàddu yi Serigne Saliou waxoon ci ba ngay taalif téere bi loola moom ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax te incha allah dinañ ci teg suñu bët kon ñu ngi sant bu baax a baax di leen gërëm mbokk yi ñu doon topp MKTV gis ngeen tey seen euh, émission liqaat muy ndaje euh, yaakaar naa ñu baree bari tey jële nañ ci ay euh, xam-xam yu baree bari jële nañ ci njàng bu baree bari ci li nga xam ne moom lañ jataay bi ñu seqoon ak professeur Serigne Assane Mboup di ko sant bu baax a baax di ko gërëm di leen dig daje fii ba beneen yoon ci beneen jataay wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Mbow jërëjëf jërëjëf jërëjëf Mbow macha allah barkallah وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير wa kathiran xayraati haadal baladi wa rizqahu wal takfihi an nakadi